ok gars yi ñu commencé ñu dugg ci liggéey bi temps amul. Mm. gars yi kii mooy moo yéen a ngi gis moo gets bu baax bii mooy photo bi nga xamante si nii moo fala la nekkee woon prison photo bu mu nekkee woon prison moo nekk nii léegi nag dañuy ñëw moo dañuy ñëw moo Gates nii la tudd Mohamed Diallo moo ngi judd le huit troisième mois mille neuf cent quatre-vingt-neuf la gis ngeen bu baax Mohamed Diallo moo ngi judd le huit troisième mois 1989 xale la mais dafa bëgg ay dil gis ngeen ko bu baax gis ngeen ko ñu doog a jàll 89 la ok léegi nan continuer gars yi euh, première jàpp bi ko jàpp 2014 la ñoo ngi ko jàppee benn dëkk bu ñuy wax Berking Berking lañ ko jàppee liñ ko jàppee mooy crédit carte maanaam crédit yi ma leen di wax moom lañ ko jàppee ñi ngi ko jàpp le 12 15 lan jàpp moo. première jàpp bi ñu ko jàpp 2014 la mi ngi nii le dous quinze e mois lañ ko jàpp bergeng lañ ko jàppe contri gerbeng léegi ñi ngi ko jàppee crédit carte moom lañ ko jàppee nii gis ngeen ko crédit deux léegi 2014 bi en même temps jàppaat nañ ko même si même si même at bi jàppaat nañ ko ñi ngi ko jàppee ak fraude fraude lañ ko jàppee ak vitesse yaakaar naa professeur bu leen ma woo ñi may woon nan arrêté gis ngeen en même temps si at bi nañ ko si même at bi jàppaan nañ moo gis ngeen bu baax ñi nekk Amérique liiral leen seen bopp bergeng waaw gis ngeen bu baax ok les gars yi dañuy jàll. fii tamit bergeng la juruma koy wane léegi dañuy jàll euh, ma ñëw gars yi may leen ma tuuti de ñiy woote nan arrêté ok gars yi gis ngeen bu baax gars yi ñiy woote nan arrêté ba tey ñu dellu jàppaat ko 2017 ñi ngi ko jàppee ci trafic dëkk bu ñu wax dëkk bu ñu wax Kalaar waaye yow ñiy woote nan kat ndayam arrêté waaye ñu jàppaat ko ba tey gars yi ñu jàppaat ko 2017 benn dëkk bu ñu xaaral ma dindi wifi bi. dindi naa wifi bi gars yi. gars yi ñu jàppaat ko ba tey 2017 2017 ni nga ko jàppee non xoolal man esa bi génn naa dëkk boobu sax ndax appel yi parce que affaire yi danoo bëri xaar leen ma ñëw affaire danoo bëri fi ma nekkoon ak fii bokkul may ma ma ñëw euh, ma tegal leen ko benn par benn email yii nii lan ko jàppee lii mooy ay email yu ngeen ko ay email yu moo gerte si ngi email yi mu am mi ngi nii email yi la ko waa FBI yi jàppee lii mooy ay email am gis ngeen email yii nii moom la ko waa FBI yi jàppee lii mooy ay email yu moo gerte maanaam FBI yi lii lan def pour jàpp ko gis ngeen ko lii mooy ay email am email am ngi nii email yi mu masaam ci àdduna bi yëpp a ngi nii. waaw léegi aja nan dem léegi nag gars yi wax naa leen calorie yoon jàpp nañ ko fa ak trafic trafic lañ ko fi jàppee léegi offensive discorruption ñi ngi ko jàpp obligation financière lii nag mënu leen ko tekkil nag mais yaakaar naa mooy affaire xaalis daal trafica xaalis yooyu moom lañ ko jàppee